turam ak santam te di leen siyaare bu baax a baax a baax te di leen xamal ne yéen a ngi fii ci Kaolack Paatuwaar kër Sëriñ Cheikh Ndiaye di barab boo xam ne barab buy jàngale la ak yare muy daaree alquran yoo xam ne dañ kaa boolee njàngalem alquran waaye ak di yar daara ji nag mi ngi séddaliko ci ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy xaaj bi nga xam ne lu jiitu xale bi dal ñu gën kaa xam ci jardin boo xam ne dañuy jàngal xale yi seen wàllu diine ak li war a mokkal ci alquran ak ay ahadis beneen xaaj bi mooy xaaj bi nga xam ne xaaju alquran bi la muy daara joo xam ne bam tabbee ci suñuy mi ngi toll ci juróomi at la tàbbi suñu loxo boobu ba léegi nag yàlla dogal na ñu ngi ciy liggéey ànd koog waajuru ndongo yëpp di liggéey ci daara ji ba yàlla dogal daara ji def ay résultat yoo xam ne jar na ñu wane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 سيغلبون في بدع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو عزيز رحيم وعد الله لا يخلف الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون زاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم di wax ci daara ji li fi nekk rek muy njàng mu baax mi ngi xam ne mi ngi fi ci biir daara ji daara ji it euh, daara la joo xam ne du daaray tey ji daaray démb la woon ak barki démb muy daaray cosaan ndax damay faral di wax naan ay maam jànge nañ fi ak i tey suñuy doom rek fi ne ndax euh, boo xoolee ne mag ñu bari tey fi mu ne nii jaar nañ ci daara ji seeni doom ba jaar fi tey jii ba seeni sët ñi ngi ci biir daara ji tey nga xam ne kon daara ji du daara yi tey jii daara yi cosaan la daara yi démb la woon ku baax sosoon ko fi yoroon ko fi bokkoon ci jàmbaari cheikhul xaddim yi muy sëriñ Cheikh Ndiaye yàlla na san borom yokk leeram taas ñu ci barkeem xalifaam di sëriñ Omar it yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ak njaboot gépp sëriñ du njaay mii di jàmbaar lool yor daara ji nangu cee sonn lool sax nag ndax ku xawal daara ji ni mu meloon ak fii mu nii mu mel tey jii ñëpp sawar nañ fay indi seeni doom ngir njàng mu baax mi nga xam ne moo fi ne daara la joo xam ne nag yar ak teggin rek la làmboo alxuraan ak xasida rek la xale yi jàng daara la joo xam ne daal damay faral di wax naan képp koo xam ne bëgg ngaa liggéeyal lislaam mën ngaa jël saw ñaq dugal ko ci daara ji te boo ko defee doo ko rëcc ndax suñ ci waa dana la fay ndax daara la joo xam ne daal alxuraan ak xasida rek moo fi am ñi ngi sant bu baax nag ustaas yi nga xam ne ñoo fi nekk di jàngal gone yi góor ñeeg jigéen ñëpp nag di leen ñaanal sama borom defal leen barkeb alxuraan yàlla na leen topp ba faw di soññ gone yi ci ñu gën a góorlu ndax fii ku fi ñëw ku ne sam xel dana dal sa njort day gën a rafet rek da ngay gën a am yaakaar ci sëriñ bi ndax uh, yar ak teggi na fi am alxuraan ak xasida kon lii mooy daara ji muy daara joo xam ne nag bokk bokk daara yi bari nañ waaye wute naag daara yu bëree bari li daara yi bari bari bari bari wute naag daara yu bari ndax yar ak teggin alxuraan ak xasida rek xale yi koo ci xool lum néew néew xasida goo bëgg ñu tari la yomb na leen lool dañ koy tari te loolu dara waralu ko nag lu dul euh, yaa Seydi mi nga xam ne moo fi nekk di Serigne Modou Ndiaye ak njaboot gi ak ustaas yi nga xam ne nii ñoo fi nekk mbooleem ñi fi nekk di jàngale it yar teggin rek lañ xam ci ñoom ak bëgg bëgg lislaam kon daara jaa ngi ñi ngi sàkku it euh, ci magi taalibe yi nga xam ne nii sëriñ bi rek leen ñor ñii lislaam rek leen ñor ñi ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne daara ji daal képp koo xam ne bëgg nga dugal sa loxo ci lislaam bu yaboo nga tàmbalee ko ci daara sëñ Cheikh Ndiaye ji ci Touba Passoir kawlax ñi ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan ci kattanu du Modou Fadal yàqin wi ngeen am ci gone yi ba yëkkati ko indi ko ci daara ji yàlla na ci sama borom def lu kawe seen jort barkeb sëriñ Fallilu di lu liggéey bi ni muy doxee macha allah am na solo lool lool lool. ndax ñun ñii nekk ci daara ji tey ci daara ji lañ nekkoon boobu Baye Cheikh fi nekkoon ak Fallou Ndiaye waaye gis nañ ci ak yokkute gu rëy rëy ndax xale yi macha allah ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi xam faratay julli di xam faratay njàpp di xam seeni ponk lislaam lépp xale bu gën a ndaw boo ko laajee mën na la ko waxal kon loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko fa mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg fa Baye Cheikh ne yeeg tegoon tànkam moom teg na fa tànkam di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax yaay ndongo yëpp moom kontaan nañ ndax gis nañ yar bi ci seeni doom am na solo macha allah ndax ndaw moom bu yaru woon rek leneen fëkk te fii moom xale yaakaar naa duñ leen gaaw a fëkk ndax jàngal nañ leen yar nañ leen ndax boo gisee xale bu ndaw buy jàng xasida kon xam ne am na luñ def ci moom ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax fa mu yegg yàlla na fa yegg ci barke Serigne Touba ak barke Serigne Abdou Khadir mi mu yaakaar sant nañ ko bu baax a baax a baax a gërëm nañ ko bu baax. nga xamante ni ñun ñi nekk ci koñ bi yëpp ku ci nekk saytu tànk ña fa di jàll mu doon daara joo xamante ni daara ju am la daara ju daara ju baax la ndax man sama doom bi mu fi dugg daanaka toll na ci ñetti at te jigéen la te day xëy di wàcc te boobaag léegi fer na fii ji mu ngi jàng ba toll ci sóoratu daanaka yaasin loolu boo xoolee ni njàng mi demee rek daanaka njàng mu baax la parce que loolu defe na instant bi lool ci ko xëy di wàcc nga doon élève boo xamante ni bu école français jotee da ngay dem jàng ji daanaka sax sa temps rek ngay am dafa dem jàngee li fi am ci temps bëriwut loolu firnde la njàng mi aw na yoon lool nga xool xale yu ndaw yi nga xamante ni intégré na leen ci li nga xamante ni mooy wàllum jardin nga xamante mi ngi ciy liggéey liggéey am solo. xanaa kay li ñuy jooy rek mooy ñoo xamante ni war nañu am njàppandal ci daara ji muy képp koo xamante ni yaa ngi dégg kàddu yi ci lépp loo xamante ni jumtukaay bu xale war a soxla la ci daara ndax daara ji amuñ fu ñu jàngee fu xale yi nekk foo xamante ni fu bañ la fu baax amaguñ fi ci ay mbaar dañu toog te amuñu amuñu euh, toogukaay yu baax wala yu demee noonu comme xale bi fi mu war nekk fu baax daal dëgg-dëgg dëgg amaguñ ko. gannaaw bu ñu wooyee autorité yi nga xamante ni ñi am yéene eh, liggéey lislaam bëgg taxawal lislaam bu ñu wooyee ku ci nekk ñu lay laaj sa aide pour jàppale daara ji mu gën ca kanam ndax ay xale ñoom ñoo fa nekk ganaaw loolu ñuy soññi parents d'élèves yi ci wàllum payoor bi nga xamante ni eh, moom mi fay jàngale yittewoo na ko ndax am na yéene ci daara ji bëgg am lu muy defar bëgg am tamit ay soxla yu mu war a faj wax dëgg yàlla buñ ci jàppee daal gëm naa ne dina baax muy parents d'élèves yeeg autorités yeeg ñëpp képp koo xamante ni am na yéen jàppale xale moo jàppale xale yi bu ko defee yore am na yéen a yore leen te mën na leen yore bu ko defee ñu mën leen jàngal ndax xale mooy doon mag ëllëg te xale mooy yore réew ci kaw loolu nag ci lañ jàppee benn bis boo xam ne bisub alquran la bisub ah, xadis la waaye tam bisub njàngalem diina la waaye tamit bisub wane njàngalem sëriñ bi la. bis boobu nag mi ngi dëppook le 6 octobre di dimanche atum 2019 ñu si woo mbokk jullit yëpp di si woo mbokk taalibi yëpp di si woo waay jëfikat yu baax yëpp di si koo xam ne mi ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh di si woo ñëpp bàyyiwuñ kenn di wax ne

ñu ngi sant mbokk jullit yëpp di sant mbokk taaliba yëpp di ñaan yàlla Cheikh Mouhamadou Mountakha toxa Bachir xalifa général kullu murid suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko tamit te yàggal suñu wasila bi nga xam ne moom moo nekk ci suñ kanam di sëriñ Omar Ndiaye di xalif sëriñ Cheikh Ndiaye di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko xam ne liggéey bi ba mu ba tey si ay loxoom la nekk moom moo koy saytu moom moo koy taxaw ba yàlla dogal mu egsi fii mu egsi di leen wax ne wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana واغسبا بخير رب ذرنا لنا سجب يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم على الملا الصالح يا قديم وهب لنا ذرية تديم على الملا الصالح يا غير زير قد أتى بمددي حتى كل ذكر زير العادي المالك المكرم المتعدي فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا بما يدم غير سددي فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا بما يدم غير سددي فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا بما يدم غير سددي